mais politique ku ne noo ko sentiree rek noonu nga koy defee kuréel gi mu ngi du continuer dox ba léegi mu ngi def ay activité mais loolu ak li jotewuñ dara képp ku bokk ci la jeunesse en marche ba tey ab jeunesse républicain nga bii li ko tax a jóg muy kuréel goo xam ne dafa farut ak genn benn leader wala di liggéeyal benn leader ci compte président de la République lay liggéey loolu moo ko différence ak yeneen kuréel yi loolu rek moo ko différence ak yeneen kuréel yi te ci noonu lañ bëgg a dox te bëgguñoo wàcc woowu yoon kuréel yëpp ñu ngi liggéey fu waaye di liggéey baax na même mouvement yi yëpp rafetlu nañ seen liggéey képp kuy jàppale président de la république côté boo koy defee rek ñun nga koy defal mais kuréel gii nii daa jóg jàppalewut benn leader jàppalewut kenn ku dul président de la république directement liggéeyut ak benn leader dañuy jàppale président de la république képp koo xam ne jóg nga jëm ci kaw président de la république da nga dal ci ñun bala àgg ci moom loolu moo ko wutale ak yeneen kuréel yi réeroo yi fi amoon de ndaw ñi moom mosuñoo xuloo mosuñoo xeex boo dee xool dëgg dëgg dëgg problème mën naa am ci leader yi kenn ku ne toog dend ak sa leader mais ndaw ñi foo leen gisee ñu daje yaakaar naa ñi miin ndaw yu APR yi en général benn la ñuy doon amuñu problème suñu biir mosuñoo am problème suñu biir léegi nag ñi nga xam ne ay interpersonnel lañ leen lañ doon am muy ci mag ñi ba di ci yóbbaale ndaw ñi gëm naa ne léegi ndax nit buy nekk ci dara da jàng màgg màgg googu yaakaar naa ndaw yu baree bari def nañ ko màgg gi nga xam ne yaakaar nañ def nañ ko mooy dootuñu nekk di xeexal kenn ci ay intérêt personnel am intérêt bi ñuy xeexal mooy parti parti bi ñu bokk te ñun ñëpp ñu bokk ko ci intérêt parti boobu lañuy xeex ñëwuñu tamit dañoo contre benn leader waaye dañoo liggéeyu ci contre genn leader leader yëpp ñu nag ñoom ma ànd déggal nañ leen ba tey ñu nag ñoo bokk parti bi te suñuy kilifa lañ leen def ci parti bi mais li ñu wax waxuñu dañoo contre leader yi mais liggéeyuñ ci contre benn leader lañ wax président de la république nag fii si département bi lim fi war a def lu baree baree bari def na ko waaye xam nañ ne des na des googu mu des nag mi ngi aju ci liggéey bi nga xam ne war nañ ko liggéey ci terrain bi te ndaw yi amuñu matuwaay 100 cent yoo xam ne amoon nañ ko pour dem ci terrain bi waaye malgré jafe-jafe yooyu ñoo ngi lancé appel suñu mbokki appel si yëpp interpersonnel bu waaye mën a am ak suñu leader yi nga xam ne ñoo nekk mag ñëpp. mbooleem intérêt bu waay maanaam actuellement benn intérêt rek moo ñu boole benn soxla rek moo je ne mooy ñu fexe ba président de la république au soir de 26 wala au soir de 24 février 2019